fidélé kóllëre suñu frère suñu xarit muy président Bougane Gueye Dany toute la coalition euh, ñu ngi fi comme ni ngeen ko xamee convoi yi nu muy demee donc euh, dañu baare fi yëpp di ñi si des dinañ yegg si mais li ñu leen mën a wax mooy tàddeel nañ ko fi ñu ñoo àndoon Bakel lu ñu waroon def mooy dem ñëwaat la même jour ñu tàddeel ko fi téye ko gendarmerie téye ko mag bi Tambacounda mu doon loo xam dañ koy naqarlu parce que tey dafa waroon nekk ci famille am nekk di def euh, ci vie professionnelle mais également di def campagne comme ñëpp yaakaar nañ ne nag dinañ ko bàyyi parce que loolu moo ñu fi indi te jàpp nañ ne incha allah ñuy dëpp dinañ ànd ak moom. je pense que Bougane ñëpp xam nañ ko préparer woon na ci lii euh, mais xalaatuñu woon mu doon nii mu demee nii euh, je pense que ni soo koy jàpp di ko privé liberté am day doon loo xamante ne li nga mën a teg loxo la. mais maa ngi dem dimbale ay nit nga ne ko doo fi demee jàpp ko dugal ko ci kaso téye ko gendarmerie dugal ko ci kaso je pense que doon na loo xam ne dañ koy regretter fortement. les autres membres de la coalition ñu ngi si yoon bi ñu ngi convoi bi dafa dafa gudd donc euh, comme ni ngeen ko gisee dañu baare fii yëpp donc procès bi comme mu ngi commencé ku mel ni man fi ma fekkee lu xew donc il faut que ñu ñëw teew parce mën nañu citer ci mbir yi tamit. moo tax ñu jéem a def tout pour gaaw a ñëw mais ñëpp ñu ngi ñëw ñu ngi si yoon bi euh, di nga di ngeen leen gis incha allah. waaw mais l'absence de de de d'un candidat ci élection ñëpp xam nañ nit candidat kay dafay dem pour proposer lan la indi population yi gis ko saafante ak moom euh, Bougane Gueye Dany fait partie des leaders de la coalition Sàmm Sa Kàddu de membres fondateurs de cette coalition évidemment présence am euh, lu ñu rafetlu woon la loo xamante ne ne lu yoon la woon tey ñu privé ko si moom si anam boo xamante ne jaaduwul donc euh, mu nag recul démocratique mu doon loo xamante ne ne jaay doole la euh, tey coalition Sàmm Sa Kàddu gis ngeen ne ni ñu koy visé gis ngeen lu xew si siège bi tamit yàggul ñu lakk suñu siège tey gis ngeen ay nit yu fanaan si ne dañoo ñëw fanaan si pour perturber te amuñu fi procès amuñu fi dara donc ñoom xam nañ ne euh, am nañ ay sondage xam nañ lu mu demee moo tax ñu bëgg a euh, song coalition sàmm sa kàddu mais façon son songin bi méngoowul ak lu ñu xaar ci démocratie méngoowul ak nit lu ñu xaar si nit yoo xam ne dañuy ñëw pour indi changement indi projet bu bees bi nga xam ne dafa war a jëlee Sénégal fenn yóbbu ko fenn Sénégal na pour man soo ko jëlee situation bi mu nekk da

dafa mel ne réew moo xamante ne amatul jàmm réew moo xam ne amatul liberté je pense que c'est inacceptable hmm. euh, dëkk boo xam ne dafa am yoon jàpp naa ne buñ dee jugé doomu aadama que mu nekk sax otage politique war nañ ko mun a bàyyi sénégalais yi ñëw librement lii mooy wane ne naruñ jàmm déjà commencé wuñ jàmm parce que jàpp naa ne ki nga xamante ni ak ñi nga xamante ni sax laa wax ñoo nekk ci bopp réew mi Euh, li leen ñor tey moom mooy suuxal démocratie mooy yàq réew mi te commencé nañ ko parce que li may wax rek réew boo sosee wax ba ñu jox la ko doo wax ba defar te aujourd'hui c'est regrettable d'en arriver là et je pense que ñun nous, nous sommes venus soutenir euh, notre camarade je pense que c'est un otage politique qui va être libéré nous sommes venus aujourd'hui à Tamba pour d'abord assister au procès de notre ami notre camarade euh, Bougane Mm-hmm. qui est un otage politique. Mm-hmm. Et je pense que le constat est amer parce qu'aujourd'hui, un tribunal, on dirait qu'on est à Tambacounda en état de siège. Personne ne peut accéder au tribunal. C'est inacceptable qu'on puisse en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de ce pays, ce sont des dictateurs, des apprentis, je dirais, dictateurs, qui sont en train de vouloir euh, quand même entacher la démocratie sénégalaise qui a été citée en exemple un nous pensons que notre camarade va être euh, libéré pour qu'il aille battre campagne parce que ces gens-là aujourd'hui euh, sont aux abois parce que quand ils euh, euh, des candidats pour empêcher les gens d'aller mener campagne, je pense que c'est inacceptable. nous estimons que doit recouvrer sa liberté. Mhm. Il doit pouvoir participer en tant qu'opposant à la compétition électorale qu'il y a. Et les conditions de détention sont des conditions qui sont difficiles, alors euh, dégradantes, puisqu'il est dans une cellule avec plus de 40 personnes. Cela n'était pas quelque chose qui devait lui être imposé. Et nous pensons que l'injustice qu'il a subie, que cette injustice-là, la justice va la réparer aujourd'hui mmh. alors grève de la pas parler de cela mmh. ce qui est important c'est que il y a un homme qui est aujourd'hui euh, arrêté parce qu'il a voulu commettre un acte de solidarité mmh. et il a l'a vu nous avons vu les populations de Bakel sont dans une situation de détresse morale et matérielle tout le Sénégal il y dans tout le Sénégal il y a eu un élan de solidarité C'est dans ce cadre, moi-même, j'avais lancé un appel pour que l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora, et particulièrement les autorités étatiques, pour prendre les mesures idoines et urgentes pour apporter le secours pour les populations. Parce que nous avons été alertés par ces populations qui nous ont dit qu'il risque, un risque de famine risque d'avoir lieu. Un risque de famine. Parce que pourquoi Les champs sont sous les eaux et les greniers sont vides. Bougane, c'est dans ce contexte qu'il a voulu se rendre et il a été arrêté. Donc c'est un acte, c'est comme délit de solidarité, alors dans ce cadre-là, qui lui reprochait. Le problème le plus important, je suis ici à Tambacounda devant le tribunal pour venir apporter ma contribution et surtout mon soutien à une personne qui a maille à partir avec la justice. Cela met mal mhm. la démocratie sénégalaise. qui n'a pas besoin, dans des contextes, nous ne faisons pas dans de longues années, des élections. Nous devons laisser chaque citoyen pouvoir s'exprimer et laisser le peuple trancher, dont le verdict va s'imposer à chacun de nous. Et il faudrait, là je le dis aussi, lancer un appel, c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de tous les candidats qui doit pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire national sans être inquiété, agressé ou tout simplement menacé par des forces. Je m'adresse aussi, euh, aussi à l'opposition, que chacun prenne conscience que nous pouvons euh, défendre nos idées sans pour autant nous livrer à des invectives, à des violences verbales, à des injures, à des actes d'agression.

waxtaan naa ak moom dama gis foofu ki nga xam ne il est mu ngi ci disposition pour défendre liñ ko jiñ nee na ma moom Bougane musul jalgati yoon ndax biñ ko bëgg a arrêté nee naa leen su fekkente ne da ngeen xalaat que dama def li nga xam ne dafa méngoo ak luy jalgati yoon maa ngi nii arrêté leen ma nekkul ci dans un esprit li nga xam ne de rébellion ou de refus d'obtempérer nee na ma tamit foofu euh, cellule bi nga xam ne foofu la nekk cellule boobu il plus de quarante autres personne te loolu defe naa ne conditions yooyu métti na te moom am na garantie de représentation lii yëpp suñ ko jaralee parce que la détention ça devait être euh, essentiellement quelque chose qui doit intervenir parce que la liberté dans notre système c'est ce qui doit prévaloir Euh, fu mu tel nii on sait qu'il a une bonne garantie de représentation mënoon nañ ko convoquer mu ñëw librement et pouvoir participer à ce procès li ñu ko téye tey euh, xalaat nañu ko mën nañu suñu basé ci moom lu mu wax ak lu ñu bindi mën nañ mën nañ am euh, espoir que dinañ ko bàyyi tey et cela est tout à fait normal beneen côté bi tamit maa ngi lancé benn appel ci Sénégal lañ nekk yàgg nañu voté ci Sénégal dans les années mille huit cent déjà ñu ngi doon voté lii joŋante la peuple bi moo ko war a jël décision askan bi moo war a jël décision et askan bi rek euh, le 17 novembre moom moo war a jël décision mais am na responsabilité bi nga xam ne état bi moo ko am te état bi dafa assurer sécurité euh, tous les candidats fu ñu mënta dem fu ñu bëgg dem ñu mën a ko def ñu am kaaraange bi nga xam ne c'est nécessaire pour un candidat ñu bañ a leen agressé ñu bañ leen Euh, euh, placé ci situation bi nga xam ne mu nekk situation de danger donc euh, di wax tamit opposition comme pouvoir ñëpp war nañ bàyyi tamit seen xel que l'essentiel lii jongante la dañu war a respectante démocratie loolu la mën nga wax sax xalaat sans aucun problème parce que démocratie du leneen wax sax xalaat nga convaincre askan bi pour que projet bi nga xam ne loolu nga koy proposé loolu loolu nangu nañ ci ànd nañ ci te ñu votel la loolu laa bëggoon wax alors de souhaiter aujourd'hui bonne chance à à à, à Bougane Gueye xam naa ne place am nekkul ci prison c'est un journaliste opposant la citoyen le defe naa ne luñ ko reproché les avocats qu'il a aujourd'hui nañ démontrer que loolu taxawul te defe naa ne dina dem këram tey loolu lañ souhaité loolu ñu ñëw tey taxaw alors euh, soutenir ko